suñu mbokki internet yi nuyu baax a baax di leen ziar combat bi amoon arène nationale démb doxoon ci doxoon ci diggante Siteu ak Lac de Guiers numéro 2 ku ne gis nañu combat bi demee tey ngi doole Balla Diouf fas yéene ko ci laaj xalaatam naka la ko jàngatee Balla maa ngi nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyu ku mbokki internet waaw lay nuyu di la delloo ziar di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu sénégalais yi si diaspora bi ñu nekk ci biir réew mi mbokk amateurs yi ak tous les sportifs du Sénégal di nuyu vraiment kilifa réew mi ah, di nuyu suñuy mbokk suñuy xarit suñuy am di jàmm fas yéene dugg ci laaju bés bi. combat bi ak doxoon démb arène nationale bi amul démb arène nationale doxoon ci diggante Siteu ak Lac de Guiers noo gisee combat bi. waaw combat boo xam ne vraiment ñu bëri ñu ngi ko doon xaar mais wax dëgg yàlla combat bi neex na parce que ñaari mbër yi déjà euh, ñëw nañ indi forme. Siteu démb ku ko xool xam ne par rapport ak combat bi mu jógee combat am ak Papa ñëw ci combat bi am na lu mu yokk yokk na ci masse yokk ci physique. xam nga forme bu baax la indi Lac de Guiers aussi gis nañ masse bi aussi bëri na mais teewul naa parce que am na condition physique am na résistance euh, li ci xaw a kii rek mooy li combat bi àggul comme ni ñu ko bëggee combat moom toujours dañ ciy bëgg chute te wax dëgg yàlla combat bi man personnellement xalaatuma woon ni combat bi dina àgg ci ay décision arbitrale yaakaaroon naa ne xalaatuma ko woon yaakaaroon naa ni au moins Lac de Guiers ci niveau bu mu nekk at euh, palmarès bi mu am at carrière bu mu def yaakaaroon naa ni moom at Cité dina am dina am dina am pexe mais toujours Lac de Guiers changé wu la stratégie am ni mu daa bëree rek la indi ñëw essayé benn yoon ñaari yoon bu baaxul nga téye sa bopp. donc tamit Cité aussi ñëw na aussi wane jàmbaar wane ni jeune la wane jàmbaar jéem na jéem na jéem jéem sottiwul vraiment ba dernier minute ba ba temps bi di jeex sax boo xoolee Cité mi ngi mi ngi mi ngi jéem a jeexal combat bi. donc li ci am rek mooy combat bu neex la am na bëre am na xeex euh, li ci soof rek mooy décision arbitre bi te boo xoolee tey euh, ci ni muy demee nii ci Siteu lay gën a neex parce que Siteu Lac de moo doon challenger bi tey moom moo moom moo tàllal loxo Siteu moo ko may loxo pour mu ñëw dugg si ñoom mais tey gis nañ ni Lac vraiment euh, style bi mu yoroon moom la yor ba léegi. dara changé wul bu essayé premier minute yi bu essayé essayé waat bu baaxul mu téye boppam teg làmb ji donc nag voilà loolu moo ci xawoon euh, metti mais démb Siteu ku ko gis xam ni il a fait beaucoup d'efforts euh, pour mën a atteindre Lac de mais comme dafa diis la de Guiers champion la te dafa diis te dafa mën a xeex vraiment euh, mun naa wax ni démb Siteu am na am na ndam am na ndam même bu dee ndam bu ndaw la sax am na ndam parce que tey la lañ jox victoire. waaw Lac de Guiers lañ jox victoire par décision arbitrale parce que Siteu am na deux avertissements du dëgg donc euh, voilà donc kon tey bu dul woon avertissement match nul lay doon tey bu Siteu amul woon ñaare avertissement yi te normalement un moment donné Lac de Guiers war na am avertissement parce que premier round bi am na benn moment bi ko Siteu di poussé mu génn normalement foofu waroon na am waroon na am benn avertissement donc loolu yëpp amul donc nag. comme l' arbitre c'est du terrain te gis nañ ni wax dëgg yàlla combat bi démb amul benn jafe-jafe pour mu arbitrer ko joxe na verdict par euh, décision arbitrale parce que Siteu am na ñaari ñaari avertissement mais la de moo warul woon nangu foofu àgg foofu at Siteu tey Lac de fi mu nekk at li mu def at ñi mu bëreel tey euh, warul woon nangu àgg foofu at Siteu je pense que ñoom fi ñu toll ci làmb fi la de tollu ci làmb te peut-être ay Eumeu ay Modou ñeneen ñooñu tey Lac de Guiers dafa indi lu leer naññ jeexal combat bi dafa waroon indi lu mel ni midi. bañ waaw bañ a déglu lu mel nan lu mel ni midi ñëw fexe fexe ndoxtu Siteu fexe naxanteeg moom daan ko mais pas nga taxaw di miime rek boo miimee dóor benn coup miime rek non miime rek du jeexal combat. mais pourtant am nañu la euh, par rapport ak des combats bi passé tey def na def na ay progrès ci côté ci côté attaque. wax dëgg yàlla euh, combat bi la de Guiers il a fait beaucoup d'efforts. il a fait beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts ci combat bi mais le fait que li ciy soxla à chaque fois muy tombé ci moom ay ay sans verdict ay match nul ay ay li muy tombe ci moom dafa bari kon war na gën di mën di mën a tuer combat am na fu combat di àgg war na ko mën a jeexal di jël ay initiative Lat du jël risque du jël benn initiative du du def dara loo xam ne euh, bon voilà sport at ay risque ñoo ànd parfois làmb am na fu muy toll non tu te sacrifies nga jeexal combat bi daan sa adversaire wala nga am leneen mais chaque fois yow à chaque fois lu la Sénégal yëpp di jugé à chaque fois bu ñëwee nekk bu yàggee nag ku golo golo nee na ku ñëpp tufli nga tooy donc mi ngi noonu. combat war na ci daal. non combat bi daf ci waroon teggi tuuma te combat bi waroon na ko mën a jeexal bu yàgg. waroon na ko mën a jeexal bu yàgg avant ci première minute yi donc boo xoolee tey toujours dañ naan la de Guiers techniquement est-ce parce que boo xoolee. Lat dafa jekk ci mën a bëree dafa jekk ci mën a xeex mais ba léegi loolu kenn gisugu ko ci moom ba léegi kenn gisagu ko ay miime rek la ñuy gis boxe sànni ko gauche droite tourné mais techniquement en lute Lac de Guiers est-ce qu'il est fort parce que waneegu fi dara loo xam ne parce que tey boo xoolee combat yi mu daan yëpp combat yi Lac de Guiers de daan yëpp boo xoolee toujours adversaire bi mooy def dara mu contre contre kele ko contre kele ko moo moog Yékini moog ñeneen ak ñeneen yëpp contre kele lay bëree te yow boo amee mbër boo xam ne ñëwul pour def ay kele kon maanaka ba daanaka yow doo daan donc la de champion bu mag la te wax dëgg yàlla ñëpp dañ ko war a nangul champion parce que nit moom boo mënee nekk ci làmb ci temps bi mu def ci làmb durée ci durée ba pare gars yi am jafe-jafe daan la c'est un champion mais tamit war na gën a mën a def ay effort man di jeexal ay combat am au moins ne serait-ce que sax di bégal ay noppiloo ay ba ay ay gémmiñu noonu waaw war na mën a yëkkati loxo Siteu xam nga lu tax sportivement du dëgg euh, la de ni niñ ko doon déggee ci combat bi foogoon naa ne tey bu ñëwee dina terminer combat bi kes gi nga tey am na am na mbër fooy toll ci àdduna am na ñooy bëreel foog nga wane sa bopp gi nga le cas Modou Ama tey y a photo nit amul lu mu ci wax du dëgg ama seen tafaatin nit amul lu mu ci wax la de tey waru woon sax waroon na sax bañ a ñu ko wéy lat nii wala lat naa parce que tey dafa waroon ñëw wan Sénégalais yi moo mën Siteu moo ko ëpp doole moo ko gën a pare moo ko ëpp expérience tey loolu la ñëw loolu la waroon wane loolu nag wanewu ko ñëw na prudent lak il est naturellement prudent comprends nga bu jëlee ko jëlaat ko rek après day tëj bëre bi te pourtant combat bi il bien entamé il a mais terminaison daal la la war a jàng ci combat la la terminaison terminer action terminer combat war na ko jàng war nañ ko jàngalaat mu jàng ko combat dafay jeex wala munoo dem yow chaque jour chaque jour nga épuiser minute arbitre yëpp chaque jour nga épuiser minute arbitre yëpp. ñaari dix lañ bëri waaw. ñaari dix mais la ba nañu la dëgër mën na bëre am na doole euh, am na ñaan na ah nay terminer combat. day terminer combat. day terminer combat mais comme ne serait-ce que n'empêche que combat bu neex la ñu bëree. Euh, Siteu wane na jàmbaar tey mun naa wax ni tey li li ñuy doon wax. bi ñu simee ko ñaar amaat ñu bëri xalaatoon nañ combat bi du yàgg ñu simee na différence de de taille boo ñu bëri tey dañ foogoon ni la de bu ñëwee day yemale place am Siteu wan ko ni man du ma sa morom fi ma nekk. pour nga ñëw nekk fi dafa am foo war a jaar pour accès fi may naa la chance nga ñëw mais dama lay delloowaat fi nga jóge mais nag ñu ñëw làmb ji compliqué ci moom Siteu wane xarañte wane jàmbaar détermination loo xam ne kenn xaaru ko ci moom tey liñ daa wéyal Tapha Gueye mun nañ ko wéyal Siteu daanu mel ni yaa daan parce que démb boo xoolee jàmm gën ñëpp jubile nañ Sénégal ñu bëri jubile nañ tey am na lu mu may Siteu tey lii Siteu am ni moo ko may du dëgg parce que ñu bëri bañ naan euh, Siteu waru woon jël Lac de Guiers lu ko dugal ci Lac de Guiers mënul daan Lac de Guiers Lac mënul daan Siteu donc bu Cité wane na ni foofu mu dem mun na fa nekk parce que tey bu demee ba Lac de Guiers mënu ko daan kon war na mën a tantewaat chance ci keneen war na mën a tantewaat loolu la wane ci combat bi wane ne wane ni mun nañ ko wóolu pour joxaat ko beneen beneen beneen beneen VIP mais ab combat bi taxaw ñu bëri doon wax ne combat bu jeexee ci ay affaire comme ni mu jeexee nii Siteu moo am ndam est-ce que Lac warutoon a dégg loolu bëri waale loolu mais loolu la waroon bañ si si Lac moo waru woon ñibbi démb ci ay deux avertissements yu Siteu am warul woon ñibbi démb ci ay avertissement Lac de Guiers woon nangu am ndam ci digganteem at Siteu ci kaw avertissement waroon na teg bakkanam jeexal combat bi mais nag comme moom sa manière de faire sa manière de lutte c'est comme ça mais war na ko gën a mën a améliorer war na ko gën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a defaraat ba nga xam ni combat am na fu muy àgg dina ko mën a terminer. Mhm. la ma waral lool ci moom est dut bu muy ci ci boppam wala li nga wax léegi war a jàng dem jàngi finition ni muy jeexalee bëri wala lan lan mooy problème bi pour yow bon Lac de Guiers problème bi c'est psychologique dara moom sax parfois du wóolu boppam day bëgg a dara sax ko wóolu du dëgg day calculer de trop parce que voilà moom euh, xel mi li muy xel mi ëllëg Lac de di bëri mais xel mi mooy bëri la de xel mi mooy bëri te day sóoraale environnement sóoraale ay noon sóoraale lii déedéet làmb am nga fooy toll sa détermination rek at sa sujet rek doy na mais boo sooraalee lu bëri rek da ngay tëj làmb ji. Mhm. day day calculer lu bëri day calculer lu bari pour moom ñëpp dañ koy xeex pour moom dañ koy sacrifier kenn sacrifier wu la. kenn sacrifié wu la ba nga dalee bëri ba léegi kenn mosulaa sacrifié lu tax nga ñëw ba fii di lay kenn du la sacrifié yooyu noonu boo ko defee sa bopp souvent da ngay ñëw ci làmb doo mën a joxe à cent pour cent toujours dangay am looy téye te wax dëgg yàlla euh, la dëgër champion la. champion la champion la kon war na mën di tuye ay combat à temps et à l'heure war na mën terminer combat mu jeex terminer combat mu jeex amul benn qualité bu mbër am te la dëgër amu ko mais dafa daf techniquement dafa am lu bëri lu des waaw ci fin bi Siteu jël jël Siteu jël risque dem song ko bay ba Lac de Guiers sukk noonu sukk fa est-ce que foofu ba Siteu bu baax est-ce que foofu jugaat foofu waru woon jugaat bu fekkoon ne Siteu am na vision liir na combat bi ba Lac de Guiers sukkee noonu parce que benn loxo Lac de Guiers mi ngi ci biir poqataanu sukka su Siteu euh, mi ngi ko kepp ba mu sukkee noonu Siteu bu ko dévier woon tuuti rek bu yaram bi tourné woon tuuti rek la dëgër day jaaxaan mais xam naa ne Siteu liirul foofu amul lecture bi liirul foofu gisu ko parce que léeg-léeg nga toll foo xam ne ci action li nit ñi di toog di ko gis yow doo ko gis mais bu amoon réflexe tuuti rek ba la dëgër sukkee ba bu dévier bu ko dévier woon rek dina ko daan jël bu rëy mais finalement amul lecture boobu te boobu combat bi sori na sori boo xam ne coono bi commencé na feeñ te boobu tamit fin combat la tey bu fa Siteu amoon combat bi day jeex Siteu tamit da doon aussi moom tamit bañ a daanu bu ko defee génn ci am ci ndam mooy ndam bi mu am nii ci kaw la dëgër. la jëm moom ci ak ni combat bi jeexee ak li yi wax lépp après combat bi. waaw la taxaw rek xaalaat booy bu mu may loxo. moom comme ay morom. comme du fu mu nekk moom nee na du fa du fa bouger du wàcc du yéeg dafay taxaw rek fu mu taxaw léegi comme mu ci buntu bi booy bo agsi ci moom rek na ko yor loxo indiwaat indi ko dugal ko xam nga nit booy. bokkoo génération ñëpp bëri nañ ko bëri nañ combat royal ba moom rek moo ci bëriwul combat royal. parce que Tapha Tine parce que non Tapha Tine sax bëri na ko. parce que fi mu taxaw rek la taxaw bougé wul la dëgër bu puusul paasul fi mu taxaw la taxaw donc nag euh, instant yi nii perspective Lac de Guiers na doon barrage rek di xaar xale yi kuñ kuñ def performance ba yéeg ci moom mu mu mu bëreeg yow mu bëreeg yow kale la comme ni mu def ak ñoom Boy Niang def ak ñoo ñeneen ñëpp parce que léegi moom mooy passa mooy passerelle bi pour jàll ci biir. parce que Boy Niang ci moom la jaar dugg Siteu ci moom la jaar dugg na xaar beneen xale tamit bu xarañ boo xam ne wat mën na jaar ci moom pour mën a dugg. waaw. Euh, Siteu nag. waaw Siteu Siteu moom dugg na ci VIP yi VIP yi xam nañ ñi fa nekk xam nañ ñi fa am combat ak ñi fa amul combat c'est à lui ak son staff ñu xool ban adversaire moo adéquat ci ñoom ñu jël ko. am na wax Balla waaw dégg naa ñu naan Balla Gaye donc loolu tamit c'est possible parce que euh, carré d'as boobu heure boo fa duggee rek euh, am nga possibilité ko fa nekk rek te libre war nga mën a bëre moom. waaw parce que boo xoolee Siteu li muy wane nii tamit aussi jot na aussi ñu commencé ko wóolu may ko chance commencé ko gëm ni nag mbër la. parce que tey koo xam ne chaque jour ñu ngi naan du mbër est-ce que mën na ci génn contre Papa Sow dañ ne Papa Sow ko mën mu ñëw génn ci contre Zarko ñu ne Zarko moo ko mën mu ñëw ci Lac de ñu ne moo ko mën ñëw def ci exploit bu mel nii léegi nag jot na ñu commencé ko wóolu commencé di ko bàyyi xel commencé tamit di ko jox adversaire yi nga xam ne tey war na mën a bëre ak ñoom mais li mu indi ci combat ak Lac de ci ci ci forme ak ci stratégie ak ni mu bëre ak Lac est loolu bëri na génn bëri na ak Balla Gaye koy gën a yokk rek li mu téye nii bu mu ko yàq bu mu ko bàyyi li mu téye nii état bi mu indi démb mun naa wax à quatre-vingt-dix pour cent c'est bon bu ci yokkaatee tuuti mu gën a saignant gën a wow boole ko contact ak résistance bu doy mun na bëre ku nekk. mbër boo amee quatre-vingt-dix kilos ba cent kilos mën nga bëre ku nekk surtout moom am na taille ba pare am na cent di kilos mën na bëre ku nekk. waaw fi ñu koy jeexalee mooy combat Eumeu Sène euh, Sa Thiès bi taxaw. waaw combat bu doy waar a ngi noonu combat bu doy waar a ngi noonu parce que keroog gis nañ ba Eumeu Sène di bëri Sa vraiment dugg ci géew bi samp ndëndëm euh, Eumeu Sène tamit bëre ba pare jóge ci defet vraiment am grandeur vraiment bay mooy may booy seen chance dañ koy féliciter encore di wax ni tamit Sa Thiès bu mu yaakaar ne jël na combat bu yomb combat bu jafe la jël parce que moom xeetu bëre bi muy bëre at Eumeu bi muy bëre boo sàgganul combat bu métti te neex la ñuy gis combat bu neex a neex a neex a neex la ñuy gis parce que ñaari mbërëntaan la ñuy gis di nga gis ñaari mbër yu bëre ba naaw loolu moom gis naa ko ci combat bi. combat ni muy bëre Balla mu bëre ko ak di ko arrière di ko di ñëw bàyyi Balla mu bàyyi ko bàyyi Balla combat bi. non non du bokk parce que façon façon ñaari mbër yi bokkul bala at Sa bokkul du dëgg Sa Thiès euh, rapidité bi mu am farax bi muy def ba dugg sa yaram commencé bëre noo Balla du ko def moo tax man la combat bu neex ñaari bërëkat la ñu ah, ñaari bërëkat yu mag a mag a a mag la ñu Eumeu Sène dafa féete mag kee gën a féete xale mais ñaari bërëkat yu mag lañ combat boo xam ne sax yaakaaruma si gis xeex bu bëri bëri bu bëri laa si gën gis bëri bu bëri laa si gën gis ñoom dañoo laaw ñoom ñaar ñëpp waaw ñoom ñaar dañuy laaw moo tax man la xeex bi du bëri parce que xeexu laaw mënoo taxaw dix minutes di laaw laaw da nga laaw pour jàppante la laaw da nga naan jóge fi wala ñu ñu daje donc kon combat bi mun naa wax ni bëre bu neex dina ci am bëre bu bëri mais combat la boo xam ne wax dëgg yàlla euh, ci kanam tuuti mun nañ cee wax lu baree baree baree bëri comme day door a taxaw dañu observer rek bàyyi mu dem mais ci kanam moom xaalis mun nañ la ci wax lu bare bëri ci ñaari côté mbër yëpp. Mhm. ñaari côté mbër foofu a waaw mhm. foofu laa ci mën a yem. ko ci wax Eumeu Sène fi ñëpp wax nañ dafa gàddu liñ defoon moom mun na bëriwaat ba ci kanam. gis nga bu ku ñuy wax ci affaire âge mooy koo xam ne xool nga ni kii mënatul am forme wala kii gis nañ ni kat mu bëree sax risque la mais Eumeu Sène ku ko xool wax dëgg yàlla war nañ ko mën a defal benn prolongation cinq ans mu demaat encore mën na bëriwaat ba ci kanam te et puis Eumeu dafa baax ci làmb ji ndax xale yi war a yéeg yëpp tey Lac de Guiers ak Eumeu bu ñu fi nekkee làmb ji day day day tax mu am sécurité parce que day VIP yi dañuy am ñoo xam ne carrément tur yoo xam ne ñii ku jaar si ñoom boo leen mën a dooni dara ay référence lañu ci làmb donc voilà euh, Eumeu Sène Bombardier ñoo ñëpp ay référence lañu te war nañ mën a bëriwaat ba ci kanam. waaw Eumeu Sène bëri ak euh, Tapha Tine même pas trois jours ñu jox ko combat Tapha Tine ba gis dégguñu combat mais boo ko doon conseillé tey pour mu jël adversaire ban ban ban combat ban kan nga koy conseillé. Tapha Tine actuellement xanaa mu taxaw rek xaar combat royal bi. combat royal xaar combat royal ku fa daan. mu tenter fa chance parce que instant yi nii amatul lu muy prouver pour dem bari conquérir titre roi des arènes na xaar Boy Niang Modou Lo euh, d'autant plus que ñoom ñaar ñëpp kenn mosu ci bëri kenn donc ku fa ku génn ci combat boobu peut-être première euh, première sortie mun na doon tafaatin bu dee Boy Niang moo daan peut-être première sortie mun na doon Tapha bu dee Modou aussi moo daan premier waaw mosul bari Tapha Tine dina doon combat boo xam ne tamit ñii nañ ko soxla d'autant plus que daan na Eumeu Sène donc voilà làmb koy booleeg ñooñu ñëpp. kon combat bu ñu ko mën a proposé na xaar combat royal bi. non ko man bu ma doon moom bu ma doon conseil am combat royal bi rek laay xaar parce que yàgg nga ci galéré yàgg nga yàgg nañ la esnoppé nga traîné ne ba ñëwaat mën a am chance aspirer mën a bëree combat royal donc danga koy valoriser mooy nga gën a entraîner waajal ko ba pare focus ci euh, combat royal. Balla mhm. merci bàyyi la nga tàggoo. jërëjëf Xaadim tàggu waa Sénégal yëpp di kontaan toujours rek ci 4appuis di waxaat mbokk yëpp. boleke leen ko ci kat app man day man Balla Diouf boleke naa ko fi de fii laa ko téye ndax Bamba mii liggéeykat la am na jom xale la du naafeq du rambaaj jaxasewul mbër yi seen biir jaxasewul kenn mi ngi liggéey liggéey bu set di wut information te dafa man moom li ko neex moom dafa bëgg dafa bëgg auditeur yu kat app yi dafa bëgg waa kat app chaque jour lu muy def mi ngi leen di xalaat lu muy def mi ngi leen di kii toujours pour defal leen omelette wala ceebu jën wala sur le plat bu baax kon gars yi kale leen ko 4appuis di leen jaajëfal donc ba beneen yoon. macha allah Balla di la sant bu baax jël la gërëm di sant ñëpp ñu suivre 4appuis surtout diaspora bi France États-Unis man diaspora naan gars yi leen ko non diaspora bee tax ma wax mais waa Sénégal nangu nañ Sénégal ñëpp xam nañ ni 4appuis moo fi ne Sénégal ñëpp xam nañ ni 4appuis li muy liggéey bëri nañu fi nekk nag ay sites yu mag ah di di di wane doole di jaay doole mais li ngay liggéey xaadim dafa set dafa dafa dafa neex a dégg dafa neex a seetaan donc voilà tu tu des encouragements. macha allah merci Balla di la sant di leen gërëm di leen dig daje beneen ñoom waxtaanu lamb